La caisse de dépôt et consignation pour déposer euh, la caution de la coale. c'est un long parcours. Nous avons travaillé sur notre parrainage. Le nombre maximum de parrainages qui est demandé à tous les candidats, nous l'avons eu. Nous avons également notre euh, stock de sécurité qui est saisi et bien traité, ce qui veut dire que nous sommes prêts. Nous sommes prêts vraiment comme jamais nous l'avons été jusqu'à présent. Et si aujourd'hui nous, nous sommes prêts, c'est parce que les Sénégalais nous accompagnent sont avec nous depuis le début. Depuis qu'on s'est lancé dans cette aventure, les Sénégalais sont avec nous. Les Sénégalais nous ont parrainés. Les Sénégalais ont participé à cette caution. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, nous les serviteurs, que les Sénégalais ne redoutent plus le changement. Au contraire, les Sénégalais attendent le changement. Et ce changement, c'est nous, les serviteurs, qui devons l'incarner. Parce que nous sommes une jeunesse dévouée, nous sommes une jeunesse décomplexée, mais également nous sommes une jeunesse résolument engagé à faire lors de sa déclaration de candidature à Tchadjaï le 6 mai que caution d'unité, mais parrainage d'unité également. Et ce que je peux vous dire, ce que je peux vous garantir, c'est que nous serons au rendez-vous le 25 février, Inch'Allah. Et cette élection, Inch'Allah, nous allons la gagner. Merci à tous. Nous euh, porte-parole du parti Les Serviteurs donc ñu ben jéego ci nga xamanteni euh, la DGE euh na ko laaj muy caution bi euh, comme niñ ko ngeen ko gisee sénégalais yi gisee ko donc ñew nañ tay déposer suñuy 30 millions yi nga xamanteni euh mom lañuy ñuy laaj pour ñu mëna bok ci élection yi. et loolu day firndeel aussi taxway bu am solo bi nga xamanteni ni serviteurs yi ak sympathisants yi ak sénégalais yi tout court ñi ngi ciy ak le président Pape Djibril Fall depuis mu dugg ci politique le 22 avril 2022 Yagul, Nam. waaye wax dëgg fa yàlla seetul nañ ni boobu ba léegi dox nañ jéego am solo moo tax tey jii euh, ñu ñëw feeñal suñu yéene ci élection yi nga xam te ni moom la ñu war a bokk te jàpp naa ni képp ku jël 30 million def ko caution ça veut dire que ni quelque part am na loo xamante ni def nga ko muy les préalables muy li ñuy tuddee parrainage loolu aussi noppi nañ ci ba pare daanaka li ñuy def euh, daanaka moom la ñuy tuddee foraatu daanaka yooyu yëpp noppi na li ñuy laaj ci parrainage lépp mat na jamono ji kay dañuy denc loo xamante ni buñ demee ba ci biir bu ñu laajaatee lu ko yokk wala lu ñuy soppi ñu mën koo ñu mën koo def donc di yégal sénégalais yi nii nañ ñu xaar nañ ñu xaar ndaxte taxaw nañ tem ngir soppi mbir yi ndaxte mbir yi wax dëgg fa yàlla dafa laaj mu soppeeku te ñi ko war a soppi mooy ndaw ñi ndax dañoo toll ci réew moo xamante ni li ko ëpp ci li ko dëkkee ay ndaw lañ donc jàpp nañ ñu nous sommes la candidature de l'espoir ñun ñooy candidat bi gën a ndaw ci histoire politique Sénégal donc dafa jot sëkk ñu jox ndaw ñi seen wàll ci liggéey bi ay ndaw lañ naam ci ay at waaye conseil constitutionnel wala euh, constitution bi li mu laaj ci ay at matale nañ ko li muy laaj également ci costion matale nañ ko li muy laaj également ci parrainage matale nañ ko donc li ci des rek mooy wax sénégalais yi ñi ngi ñëw nañ ñu xaar te incha allah yàggatul dara dinañ gis soppeeku bu baax a baax ndaxte réew mi dañoo sonn dañuy nekk ci crise ni ko président Pape Djibril Fall di ko faral di waxee te crise boo ci nekkee du xam-xam bu bari moo koy moo koy faj du xaalis bu bari moo koy faj waye likoy koy moy mooy jikko yu rafet te jikko yoyu le serviteur yi lambo mom la sympathisant yi lambo mom la sénégalais yi lambo mom tax dañ ci bëgg and ak ñom dekkalaat yaakaaru ndaw ñi dalal xelu mag ñi nga xamante ñi ngi suñu ginnaw ñom dañuy faral di wax sax nan dernière chance bi ñuy wax pap jibril Fall nee ñun duñ pap jibril Fall du suñu dernière chance ñom la seen dernière chance ndax ñom seen walu wëy bu len président pap jibril Fall rëccee donc ñu gisati ku ñu mel motax ñi ngi ñaan sénégalais yépp di len wax ni da ngeen ñu xaar ñi ngi ñew këroo kër du ñu bàyyi benn kër xàmme wuñu ku bokk fële wala ku bokk fii dinañ wax ak sénégalais yëpp niñ ko doon defee le 6 mais bi passé le président Pape Djibril Fall wax na ko ci biir waxam dénkoon na sénégalais yi ni ñu leen caution du ñu téye parrainage du ñu téye loolu tey yaakaar naa ne firnde la te ndam lu rëy la ñu am ku mel le président Pape Djibril Fall mu tabbi ci langue politique gi andi lu bees li ñu ñaan sénégalais yi rek mooy nañ ñu déglu coow li mën naa bari lool waaye nañ déglu rek may ñu nopp ñu wax ak sénégalais yi ñu dégluñu te incha allah bu ñu dégloo jàmm xam naa ni le 25 février palais incha allah dina am gan gu bees dina am ndaw dina am koo xamante ni dina taxaw temb dakkal li nga xamante ni mooy mbëkk mi dakkal li nga xamante ni également moom mooy Nicara yoonu Nicaragua bi dina dakkal li nga xamante ni également mooy chômage dakkal li nga xamante ni également mooy tëj yu bëri yooyu noonu teg ko ci xam-xam teg ko ci yitte waaye teg ko ci ay teggin yu mat sëkk. donc loolu lañu andi won tay di wax sénégalais yi ñi ngi leen di sante bu baax kenn ku ci nek fo mën di nek ñi ngi lay sante ndax kenn ku ci nek def na ci sa ñaar deureum ak sa deureum pour que li mën a donc c'est une question participative comme niko sama collègue bi waxe sank euh, pen de Dieng donc loolu moy li nga xamante ni moom la andi won tay di wax sénégalais yi nañu xaar ci ay fan yu néew inshallah allah dinañ gennat bu parrainage bi jotee ñi lañ koy defee ànd koog sénégalais yi di leen xam ni nekkuluñ ci ay tappale nekkuñu ci ay pop Y'a naa ku gis ñu déposé caution 30 millions kooku fawut té inshallah li ci kanam rawuti jëf